làmb ñu ngi lay ñaanal nga gudd fan loolu le promoteur numéro un Fallou Ndiaye jërëjëf ci teewaay bi gis nañ sa teewaay saa boo ko rek ci luy doxal làmb ci luy defar làmb rek ci la nekk mhm. moom Fallou Ndiaye du yàq làmb benn yoon borom Ibamar borom Ibamar Diop <laughs> ndeysaan ñu koy nuyu bu baax a baax ñu ñu ñu ñu continuer ci combat yi ñu woo Ndaanaan ñu woo Seck Ndaanaan Seck Ndaanaan ak Franc waaw waaw ndeysaan kooku doomu jëbal boo demee Yoff boo laajtee yaayam Koura Ndiaye Samb Yoff Yoff yëpp ko xam Frambe Frambe mooy combat bi du mën ak de loo may sëlee nii Seck Ndanane ma baale ko nuyoo Seck Ndanane waaw ginnaaw bañ sante yàlla di julli si yonent bi dañuy sant suñu ñaari waajur di sant assistance bi ñi xam ne ñoo fi teew ñëpp gis nga di sant waa Yoof ñi nga xam ne fa laa di sant waa Tiwaan Pël di wax ma fi waa Tiwaan Pël maa leen woosu combat bu baax a baax xam nga di sant sanu sanu sanu bu baax a baax di ko woosu combat bi di ko wax combat bi ni la Kumba Ramdan xam nga borom jaama gën xale bu guddee xam nga yaa ma gën a xam doon jàmbaar yëkkati xaalisam ti ji affaire boo xam ne mooy loolu da siy jàppale ñëpp maa ngi koy woo si combat nii xam nga di sant booy ma àndal ñoom Sërif Assane di la bàyyi baal combat bii nii booy bii laa koy bëreel booy bii nii moo doon toog samay cumukaay yaa ngi dégg bi mu fi jugee ba bi mu deewee ba léegi nii ma xam nga ñoo ànd tey si guddi gi mu tàggu ma dem géej lab foofu noonu quoi xam nga kon combat bi kii laa koy ma ñaanuma yàlla ñàkk ko xam nga di si woo ñëpp di wax képp ku ci dee course mu si combat nii xam nga di nuyu suma adversaire di ko wax moom ku ko respecté laa quoi yaa ngi dégg di woo Ngor Yoff Wakaam Almadi Trawo. kaay di nga woote kaay maam maa lay woo bi. booy njaago gi waaw noonu la demee ginnaaw ma sant yàlla di prier si Yeesu Kirista di ñaan si Mariama Seel maa ngi gërëm waa Parcelles Assainies 1 26 di samay ñaari waajur ah di gërëm sama mbokku njaago yëpp képp kuy doomu njaago deret képp ku déretu njaago daw saye maa ngi la woo si làmb ji déggoo lu ma dama ni la ngi seen nga tëb mooy 1000 francs lépp lu njaago mu ta am si làmb loo xam ne mos ko am si làmb man naa ko andil yee noonu la demee waa Guinée Bissau ñoo ma yónni ko waaw noonu la demee déggoo lu ma la xanaa man la ñuul bi borom ma fiyaa fëgg dóor boobu yi naw ma men daa sardié ma ne ma ñëg sardié tiré karakaj boobu bu xaayee ñor bu xamee baaxul man man dara man ma fiyaa partagé circulé déggoo lu ma la xanaa dañuy dox rek xamuñ fu jëm dañuy dox rek xamuñ baa baa la dama ne la sàcc na num géwél yomb na waaye fa nga koy tëggee moo jafe man sama juróom-ñaari maam yëpp ay géwél lañ yaa ngi dégg barki Sëriñ Bamba noonu du ma la limal samay maam ndax yow sa maam sama maam la géwél yi toog maa leen sant bu baax waa Ngor yi nii di sant reporter yi man ñëpp man lan faral barke sëñ bi <laughs> di nuyu sam papa sam papa Fallou Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax maa moom du làmb avant làmb la avant may doon mu doon ku baax doon ku gore ànd ak man di ma woo di ma conseil su lu dul làmb mbër yëpp nag ay mbërëm lan mais man doomam laa suma ma yaay moo ko jël dégg ma ko kon maa ngi koy ñaanal numéro un lépp lu mu ko jot. amiin yaa ngi dégg booy bii nii. ku ko respecté laa ku ko jox cër laa. yaa ngi dégg. damay jour si damay ñaan yàlla moom moom ndam mu may man ndam si kawam. barke Seydina Mohamed champion la ndaanaan la boo ba léegi maa ngi koy déglu mu may xalab mais man duma ma xalab mbër. ndax ñun ñëpp dañoo bëgg a teral yaay man duma ma tooñ mbër du xalab mbër maa ngi ko dégg mu may jaxasee njaago yi naan ay booy man dama am ay mbokki njaago. ñoo xam ni fu ma jugee ñu jug yaa ngi dégg bu ma jaxasee njaago yi di woo waa Joal waa Fadiouth xam nga waa Thiès waa Touba maa ngi leen woo nee na gaa moom lañ faral. ngeen woote waaw nee na gaa yëpp moom lañ faral. waaw nee na gaa yëpp moom lañ faral ah. ah. mais loolu cóor moo nga wax kii. Hmm. danga naan kon daanaka nga jàmbaar la mais ki a daan wala laa daan moom da koy dégg. lan nga ma loolu dafay am si kàttanu yàlla man xale laa ah. kii moomu judd si laa moom ak fu ba may bëre bërewu ma kii lépp lu am kii lépp lu am si làmb wax si wax kii lépp lu am si moo tax moom ko damay am combat dama am combat dama am combat dem si ni nekk am naa combat yi sekk ndaar ñu la may yaay bëri ku bëri wax eh, kii ndaanaan la de daa bëri wax ñaari victoire la ndaanaan bu bëggee fanaan day naan ci ndaa kii musu kii musuma wax lu jëm moom bu combat bi taxawee ba léegi waxaguma lu jëm si moom maa ngi moom mooy wër di wax di ko xamal kuy wër di wax ak ki liggéey bokkul ki gën a sonn si combat bi daj coono ki gën a liggéey ki ëpp doole yàlla na ko yàlla may ndam. tàggool barke Seydina Muhammad tàggool booy. ku gën a tarbiyu làmb. xoolal xoolal waa parcelle ku gën a tarbiyu làmb ku gën a bëgg làmb yàlla na ko yàlla may ndam. làmb ji maa ngi si woo waa Parcelles Assainies 1 26. di woo sama mbokku njaakoy làmb ji sama booy ndaw yi laa koy bëreel. di woo waa Fadiouth làmb ji seen làmb la. waa Zawal yaa ngi dégg waa Medina Sarr waa Bawol waa Casamance waa Binjoonas di boo sama mbokku mboor mboor dañ may jàppale ku si mel ni ñoom Cheikh Bey ma fi yaa mboor mboor yëpp dañ may jàppale di woo sama mbokk Saalum Saalum dañ may jàppale képp kuy déref saam saam daf sa yaram rek maa la woo si laam yi nga ñaanal ma. jaajëf Franc demee nag jërëjëf maa ngi woo Ali Ali borom Max Sport xaalis bari la ma jox yëkkati ay yére ay sañ-sañ yu bari jox ma maa ngi koy woo baax a baax tey jii moo ma solal sax mais daa am nu mu demee quoi barki alxuraanu karim maa ngi si woo maam Roxaya bu baax a baax di woo Sanu bu baax a baax di woo Kumba Ramdaan xam nga di ko wax mu jàpp bu baax a baax léppay baax di ko wax suma combat bii nii. di si woo waa Tiwaawan Pël gépp di nuyu suma yaay Fatou Gueye Ndiarème jël ma dem ma kon doomam lu war si man ma koy def yaa ngi dégg di woo ñëpp Baye Balla di wax Pape Bégaay na ma ñaanal jaajëf di wax Modou Baye Fall yàlla na ko lii jik